xuus ndox ba ci baat daa xuus ndox ba fii nga xam ni bu eggee dina dina dina nuur bu tourné dina nuur <laughs> léegi nag moo tax tey munul munul munul jékki-jékki rek tourné noonu une bonne fois mm-hmm. rek affaire yi jeexee noonu parce que dafa am luy garaaw yu si am dafa am ay dee dafa am ay ñoo xamante ni dañoo am ay mais dee yooyu peut-être seen seen bakkan foofu la waroon a des noonu nga ko parce que lay bi fi nga war a yem dañuy jaare ci li nga xam ne moo di wàllum Cour des comptes jamono ji ñu toll nii nag nekk li nga xam ne aussi information bu metti la secouer le tour du nekk parce que aussi dañu nekk ci li nga xam ne rek moo nekkoon covid 19 di mbas mi nga xam ne mhm. ku ci nekk dafa indi woon argent du contribuable am daal di ci participer ku ci mel ne Serigne a yëkkati lu toll ak 200 millions jébbaloon ko ki nga xam ne moo di nguur gi ngir ñu jóg xeex li nga xam ne moo di covid 19 waaye depuis loolu romb ba léegi nag ñu ngi gis ne ay tappale dafa mujjoon a am ci li nga xam ne moo di xaalis boobu rek li ministre des sports tuddoon nañu ko ci xaas bu takkoo takku ni moom it laaloon na ko ci li nga xam ne moo di Covid 19 bi li ñu leen jébbaloon maanaam dañ ko tasaare ci seen biir séddoo ko mu nekk loo xam ne nag information ba daal dinay wéy ku ci nekk ñu la ciy tudd yi ministre yi ministre yi ministre loolu nag nekk ñu bëri di ñaaw la parce que dañ ne bu mbas amee est jar na ñu ciy profité ba ciy def yéen nii. waaw mais xam nga tey bu fekkee koo xamante ne nii xamoo ay millions ak i ñu jox la ko. ñu dénk la ko da ngay tiit maanaam. da ngay fifi maanaam ni ma ko mën a expliquer. doo ci li ma la ni ma la ko mën a expliquer baatdoo la lu xel ma xalaat mu def ndax baatdoo la la. Mm-hmm. waaw mais nag waxuma ne nag ay baatdoo la la waaye baatdoo la lu xel ma xalaat mu def ndax baatdoo la la. waaw am na ñoo xam ne nag bu ñu yoroon caabi àjjana kenn du dugg. gars yi ne lu ko waral ñu ne ndax soxor loolu ci ak coxor la bokk. ñun ñu ngi am problème huit heures ñu jàpp ñu dóor ñu ñu dem tëdd ñu tëdd ndekete jamono jooju ndekete jamono jooju ñoom ñi ñuy ñi ngi séddoo xaalis bi mais nag xaalis boo xamante ne nii yow yaa ngi koy lekk mu leer na lii boo ko lekkee suba suba dina génn ci yow waaye wala buñ la suulee boo deewee di nga xam ne lii nga doon lekk moomoo ko imaginel mun Mountakha jékki jekki génne deux cent millions te mm. deux cent millions du xaalis bu ndaw quoi mm-hmm. benn mille francs rek jamono jii du xaalis bu ndaw. 1000 mhm. francs am na ñoo xam ne boo leen ko mayee dañuy fecc. Mhm. nga jël yow milliard milliard maanaam milliard xubala million de milliards nga jël ko di ko séddoo seen biir ba yoon ba yoon yéen ñi ko doon séddoo yéen a wëlbatikuwaat di di di di leen di toppaat seen bopp ñoom ñooy toppaat seen bopp di mhm. ñun ñun topp ñu leen yàlla moo leen ñun topp ñu leen ci dara xolo yàlla léegi la cinq lay fay moom li ngay jóob mu fay la la cinq léegi nag li ñu doon def topp nit ñi Covid bi boo du xoolal jàpp nit ñi di jàpp boo solul masque ñu jàpp la dugal la ci oto bi nga fay 3000. 3000 mhm. boo duggee si oto ñu jàpp sa chauffeur euh, bi ni ko ñu nekk si oto bi fay solo ñu masque nga fay nga 8 heures nit ñi tëdd. ñu mhm. yokk affaire yi maanaam. jàpp ñu daal ñun di ñu manipuler ñun def ñu comme ay Mickey comme ay poupée ñun sénégalais yi. Mhm. di ñu te te nguur moo ëpp doole bi nguur moo ëpp doole ñaari nit moo ëpp doole ñetti nit xam nga bu police am na ñoo xam ne bu ñu gisee tenue rek dañuy tiit. Mhm. imagineel tey policiers yi nekk ci kii bi ñu jox leen dogal policiers yi nekk ñu ñoom ñooy dogal de dañ leen koy jox léegi ñi leen koy jox ki leen ko jox ak fi mu jógee ci kaw. Mhm. ñu ne léegi Sénégal comme que euh, dañoo am Covid 19. Mhm. léegi huit heures dañuy tëdd léegi ñu dóor léegi nag journée bi. gis nga jaxasoo boobu ñu doon jaxasee bu fekkoon Covid bi tey day rey sénégalais yëpp ñun ñëpp dee na. ñëpp dee na. màggal gi jaar na fi. Mm. marché Sandaga marché Géejawaay marché Pënd marché yëpp ñu ngi doon duggante di génne ñu naan Covid bi Covid bi guddi gi nga xamante ne nii ku nekk ci sa kër ngay ne. Mm. ñu jàpp la di la dóor. boo génnee ñu dóor la jàpp na ay nit filmer leen ñu leen di defloo ay affaires yu métti mm-hmm. ci mbedd mi. Mm-hmm. ba pare ndekete boobu ñun suñu alal alalu askanu Sénégal ñu ngi koy jël di ko seet léegi nag comme que ñoo ko séddoo woon seen biir ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko génne woon léegi noonu ñoom ci seen biir nanu ñëwaat ñu ngi leen di woowaat pour ñu génnee xaalis bi teg ko ci yoon mais problème bi yëpp teewut ñu ngi dund ñun teewut ñu ngi dund ba pare ay magum jëmm li gars yi wax man waxuma ko toog ci tele yi di wax loo xam ne yow mii wax la ngay dalay leer ni lii ngay wax du dëgg li ngay wax mi ngi génnaat ci suuf mm-hmm. yaa ngi wax mais mi ngi génnaat ci suuf parce que li ngay wax du dëgg mais ci magum jëmm ba pare ñu jox loo responsable bu rëy ci Sénégal nga toog yow am am am am am am am am fit ju toll ni li ngay wax yow mii di ko wax yaw xam nga ni lii ngay wax du dëgg ba pare ñun sénégalais ñu nekk ñun ñoo xamante ni comme ay xaru baali baali ñun ñëpp huit heures ñu tëddi mm-hmm. ginaar sax ñu tane woon nag ndekete mais nag yooyu yëpp li ko ëpp solo mooy yàlla mooy leeral yàlla léegi la cinq lay fay da ngay liggéey mu fay la la cinq pile moom de léegi bagage yi day leer. weer na leer waaw. waa léegi nag ñoom comme ñoom ñoo demoon ñoo ko jël ñoo ko wax askan wi ñaata temps dugg na fi jox nañ ñaata temps. léegi nag ñi nga xamante ne nii ñi nga xamante ne fond de commerce lañ ko def waaw léegi ñi nga xamante ne nii ñi nga <laughs> xamante ne nii man na xama ñan moomu ci gën a metti ñu doon taxaw ci télé bi chaque jour naan am nañ temps de cas camp communautaire Pikine benn Parcelles Guédiawaye ñaar Kër Massar 10 <laughs> yëmbal ñett euh. après man dama naan waa ñii ñii ñii ñii nga ah, tourné waat dégg di ñu séddoo millions yi. léegi milliards yi ñoom ñoo ko séddoo. dañoo baa doole rek parce que déjà. ba pare ñu doon ñu doon wax dañoo ci question de ñàkk a juddu mais je me suis tey jii mën nga cee añ reer ci suba nga dékk ci may ci say noonu may ci say bañal te amul que def alors que ni noonu. yow li nga yor moo ko dañ la ko dénk dañ la la def ko fii man jëme li gën a rafet def ko fii buñ la laajee ëllëg buñ la taajee merci beaucoup buñ la taajee ana lan nga fi def tracel tracel tracel mu doon lu baax mais waaye kenn du la toppee dara xamante ne ni baaxul mhm. te mën nga ci jaaree sa poste ñàkkee fa ñu wàccee la nga ne nga bopp da doon gis ñoo xamante ne boo xamante ne ni boo Covid bi daf leen daf leen ruiné. bien sûr mënuñu woon dara duñu xëy waaw kay duñu xëy duñu def dara ma jël xaalis boobu noo def ko seen fond de commerce di ko partagé seen biir comme ça lépp dina leer ndax yàllaa ngi fépp yàlla mu ñu ci ruq yi te ku fa dee tamit moo la rey. Mhm. ci bayaaleeg fépp li waaj a naan béjjën yi ngeen di suul neen yéen a ko fi. jinne doon mhm. mais nag gis nga ñoom. fekkee nii. Mhm. su askan lekk ay askan wi yooyu moo baaxul moo tax tey bu nuy moo tax ku ci dugg ci biir suuf suuf dina la wan ni la yow daal euh, ku baax yow li nga doon def. li nga liggéey léegi nag yow fii ngay mujj parce que ñoom danoo defe ne du ñu dee. te ba pare dañoo def tamit nguuru yàlla rek moo dul jeex nguuru yàlla rek a dul jeex ñoom seen nguur day jeex parce que te te te bu fekkee nit da ngaa da ngaa wax benn affaire yaakaar naa yow mi yow mi ni feebar boo xamante ni c'est international yow yaa ko wax xaw ma yaa ñoo ko keree xaw ma ñoo ko wax xaw ma feebar bi daa am léegi am na yow dimbalee toonu li nu war a am nga koy lekk li nga xamante ni ñun ñoo war a utiliser ba ko la mu yalwaan gumba nag tal na leneen lu dul tëbi teen xam nga gumba nag du tëbi teen waaye ñoom waxuma la ay teen te affaire bi kaa ma xamal benn affaire de coow li xolop coow li euh, pëndub teen la rek. Mhm. gaa yi amul baag la fi mu toll nii ñi amul baag rek ñu doon. am musta am milliard. ku mësta gis milliard. nga jox ko nga dénk ko des milliards. billaahi boo ko dénkee nit fu mësta am million nga dénk ko deux millions day jël cinq cent mille yi. def ci poosam. Mm. naat ni la dafa réer wala dañ koo kii. Mm. parce que yooyu yëpp noonu nag damay jàpp ni nit moom li ma waxoon rek baa doolam moom. Euh, kenn du ko waa xamul yeelaa waaw xamul yeelaa xamul yeelaa waaw kenn am na ñoo xam ne xew maa ngi nii ñu dam tànk liir bi cere jaa ngi nii ñu mooñee ñaari loxo dam ñoo xam ne ngay fuuralee tëstal waaw tëstal ah, waaw taas mbax nga nga nga def ki jëriñ daaneel euh. daaneel boo xam ne du ci temps bi tamit yii yëpp contre ñoom ñëpp da ñii si contre maanaam dañoo nekk ci beneen temps temps bi nu nekk ñun population bi ñun ñu ngi ci jàmm parce que xam nga moo tax mhm. ba pare xaalis bi ngay yor des milliards nit ñi te ba pare da leer ni am na ñoo xamante ni ñu ngi denc milliards yu euh, jël nekk xaalisu askan wi te dend na nag ñoo xam ne bu nu añee du nu reer. yee du duñ leen ko jox. Mm. mais li ci ëpp solo mooy tey comme que xaalis ñëw na feebar am na fi dimbalil askan wi. Mm-hmm. yaa leen tënk ba pare di lekk seen xaalis. tënk leen ba pare di lekk seen xaalis. tëj leen di li li li waaje naan fajaroog maam Yaasin Saaro. gars yi yeewu leen balaa timis jot. Mm-hmm. te c'est jamono jooju dañ toll ah fajaroog maam. dootoo yeewu dootoo yeewu ci ah, yeewul ba timis jot xamal ni mm-hmm. journée bi raw na la. dëgg la ñu gis ne nag jamono juñ toll nii laay bu jógee foofu dañuy dem ca Touba Serigne Mountakha Al Bachir doon ki nga xam ne moo di xalif